asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yu ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV di baal ñëpp àq te di baal ñëpp àq euh, comme que nag wax dëgg yàlla dañoo nekk ci koor mu nekk loo xamante ni dañuy baalu àq naam am na loo xamante ni mën nañoo def loo xamante ni neexu leen wala mu neex leen ñuy baalu ñëpp ñëpp ñëpp àq rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan naan leen kóolute bi ngeen am si ñun. wax dëgg yàlla amuñu seen fay mais yàlla neen yàlla fay beneen bi tamit mooy euh, di bëggee nag tey ñi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk si ku ci mel ni King ak ki nga xamante ni madame King muy Buri mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla nee naa ko accueil bi rek dañoo kontaan ci loolu mu nekk tamit wax dëgg yàlla femme bu baax femme boo xamante ni moom man maa ko bëggal sama boob te lu ma ci góobee gar ko ma chérie adoré maa ngi lay bëggee bu baax a baax tey nag ah, ko gis jotaay bi nag comme ko ci koor lañ nekk te nee nañ leen lépp loon bëgg dañ koy def ñu ñëw fekk si nag ki nga xamante ni champion la muy Boy Seye numéro 2 mu nekk naam nag wax dëgg yàlla kombaam ak Gackou 2 gars naan dina am wala du am ndax bañ jëlee avance yàgg na dañuy waxtaan ak moom ci loolu yépp mais nag comme que mbër ak diine la ñu wax koor gi dañ leen indi benn émission bees mbër ak diine mbër ak diine nag mooy booy Seye dinañ waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy diineem cof tuuti ci li nga xamante ne moom mooy làmb parce que sañu ñoo jug Euh, ñëw seeti champion bi te duñu waxtaan moom ci li nga xamante ni moom mooy euh, làmb dañ koy bàyyi mu nuyoo après nag ñu dem ci li nga xamante moom mooy waxtaan bi Boy Seye 2 maa ngi nuyu. ginnaaw bu ma santee yàlla julli si sant suma ñaari waajur maa ngi nuyu suma sëriñ Cerno Baabulaahi Baabul Jannati ndaamal daaru maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di nuyu waa Kër Masaar yëpp di nuyu waa daaru mu sama dëkk di nuyu fu ma fekk nii tey muy suma patron muy suma muy sama papa muy sama lépp muy muy king maam Thierno ndaamal daaru ñu gën ko xam ci king maa koy nuyu bu baax a baax di ko sant di ko gërëm di nuyu soxnaam buri muy Ndey Jóob moom tamit suma yaay maa ngi koy sant bu baax a baax baax di ko gërëm di sant suma coach Baara di ko nuyu bu baax a baax fa mu nekk maa ngi koy siyaar bu baax di nuyu waa école de lutte Boy Sey bi yëpp di nuyu waa Kër Masaar yëpp rawatina cent pour cent Kër Masaar bi jarul di tudd tur nag mais maa ngi nuyu ñëpp képp koo xam ne yaa ngi si biir rek maa lay nuyu. Hmm. nuyoo bi am na solo moom mi Boy Sey numéro 2 nekk écurie Boy Sey dippee boppam ki nga xam te ne mooy Boy Sey 1 euh, Boy Sey 1 moom année mu daa daw wala nu mu demee noonu année mu waaw boo see ñu ngi déggante ñu ngi déggante ndànk-ndànk nag mais mu ngi si mu ngi si jàmm bu baax baax. Mm-hmm. mbër tey nekk koor ñu ñëw seet si la bala ñoo dem ci waxtaan bi mbër mbër mu woor <laughs> ak mbër mu woor ban différence la am. benn la rek benn la rek parce que ñun yar nañ ñu si lépp quoi parce que ñun xam nga yàlla dafa nattu ñu nekkoon si daara ji quoi. tamit ku xam daara da ngay xam ne dañ lay tàggat si lépp bu fekkee daara bi mel na nu mu war a mel donc tey koor benn weer la rek si at mi day ñëw rek nga maintien ko dina metti nag quoi parce que nga daan xëy di lekk di naan benn jour jot rek ñu ne tey nga ko war a commencer dina metti mm-hmm. mais da koy def comme da ngay jaamu sa borom rek te jaamu sa borom moom yombul. Mm-hmm. waaw boo bëggee fay ko ëllëg moom faaw nga daj ay coono. Mm-hmm. koor moo gën a yomb si jaamu yàlla. ndax hmm, parce que koor mun benn weer benn benn benn yoon la si at mi. Hmm. mais nag jaamu yàlla bi war dëgg-dëgg. chaque jour la saq minute foo toog rek nga war di jaamu yàlla mooy sa xol. Hmm. dafa war a set sa digganteek do askan bi mooy ñi nga xamante ni bii say mboq lañ ak say dëkkandoo ak say xarit ak ñi nga xamante ni bii da ngay taseeg ñoom si àdduna bi fu nekk. loolu yëpp si tam mën nga si jaamu yàlla jaamu yàlla daal yomb na metti na nag mais yomb na. Mm-hmm. Boy Seye wax nga ko léegi Boy Seye euh, ban at nga commencé woor parce que am na ñoo xamante ni dañuy màgg woor am na ñoo xamante dañ koy gis te yow nitu daara nga mais sa koor ban âge nga ko commencé. waaw bàyyiwuma si xel nag parce que bugguma fenn quoi mais en tout cas bu ma nekkee xale bu ndaw laa commencé di woor. demoon naa ba benn moment nag xam nga fii am ay koor yoo xam ne dama ko doon dama doon ko bàyyi noonu di ko bañ a woor. maanaam topp sa sago. xam ma rek peut-être mun na am daal lu waroon a am la aussi tamit mais depuis génn nañ si loolu daal ñu ngi si leneen. Mhm. waaw ñu ngi woor ñu ngi def lépp loo xamante ne bii rek loolu la yàlla di digle. ba mhm. euh, ban année nga ban année la woon temps yooyu ban ñaat at nga amoon kon boo see bu ma déggee ba nga commencé woor non yàgg na kay parce que boobu léegi def na ay quatre ans. ay quatre ans. waaw ah. daa nga war woor gàlle. maanaam wóoroo ba pare nga ñëw si kër gi nga ne woor naa waaw loolu ñëpp si jaar moom. mais sa woor gàlle daan demee sa woor daan na jure à parfois wala papa wala mag yi nga ne damaa woor ñu yërëm ak âge bi ñëw jox la nga lekk jox la nga naan. man nag sama yaay moom bu ma gënee nekk mag. Mhm. daf ma xawoon a yërëm si affaire làmb ak yooyu quoi parce que xamul xamul làmb. xam nga daaru musi xamuñu bëre làmbu amu fa uh-huh. man seulement fa nekk di bëre man la ko yàlla nattoo uh-huh. loolu nag nattu yàlla la ko waa mais daf ma yërëmoon si bëre bi tellement ko ba nga xamante ne bi ak nu ma gisee nu ma fonkee entraînement uh-huh. day da ma doon wax naa ma bul woor parce que après entraînement yi day metti da ngay jeex affaire yooyu xam nga man tamit ma topp ma man man waaw ma eh? topp rythme bi di bañ a woor affaire yooyu noonu bi ma demee nag ba xam ne kii mais dafa am dafa am yërmande buy daw si moom sama digganteeg man rek xam ma te man nekkatuma xale xam ma faaw ma jaamu yàlla parce que jaamu yàlla nag nekk na mbir boo xamante ni bii lu waay lu ci waay def rek sa bopp nga ko defal. moo tax nag ma commencé di woor nag naaj. Mm-hmm. koor lan lay def ci nit. koor waaw xam nga toog lekk naanu ba benn heure nga lekk nga naan wala nga lekk mais koor lan def ci dina la yar koor dina tax yow lépp loo xamante ni bii yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko rek doo si dox koor da lay yar ba pare en même temps ci nuñ ko déggee mën nga si jëlee wér gi yaram bu bëree bëri mën na dindi bépp yàngoro yu bëri sa yaram parce que xiif bi ngay xiif noonu journée bi mm-hmm. si niñ ko déggee quoi mais en tout cas daal ñun lépp lu ñu ciy def rek dañ koy def ngir jaamu ci suñu borom. defar suñu ëllëg parce que tamit fii nii. fii kenn saxu fi dañ fiy jóge comprendre nga. da doon dangay nekk ak sa xarit wala sa yaay wala sa dara nga xëy suba ànd ak nit ñi ba ñu dem ba ci biir armeel yi ñu gas ko suul ko kon da ngay xam ne yow tamit dañ la koy def te xamoo kañ la te lépp loo dund rek maanaam nit ku nekk âge bi nga toll rek nit toll na fa jóge fi comprendre nga nit toll na ci âge bu nekk jóge bi comprendre nga. moo tax am na foo xam ne boo fa tollee si âge yow yaay calculer nga ne kat gë yaakaaruma ma dundaat loolu noonu quoi parce que xam nga ak dëkk bi ni muy doxee ni muy doxee ci ci dund bi xam nga si lépp chaque jour rek yaa ngi gis ñuy yóbbu nit ñu armeel ya ñi ñu leen di yóbbu hôpital. Mm-hmm. ak lu rythme bi neex neex neex bàyyi sa xel loolu noonu. Mm-hmm. dina tax doo juum quoi. Hmm. loolu noonu nag comme lu ma la wax sànq rek man dama siy sant king quoi xam nga king boo gisee ma koy gërëm boo gisee ma koy sant di ko gërëm di wax mooy sama patron mooy sama lépp parce que gis nga depuis bu ma dalee bëre ba léegi man king nit defal na ma lu ëpp li ma king defal mais tamit nit defalu ma li ma king defal parce que king maanaam dafa defar sama jikko defar sama waxin defar sama doxin defar ni ma sama lépp daal te loolu mooy nit képp lu la waaye mën a jox ci ay millions te defarut sa sa sa comportement. Mm-hmm. mook zéro ñooyam. Mm-hmm. parce que boo yoroon ay millions. Mm-hmm. te yaruwoo tamit ku yaru mooy ñëw jariñoo ko. comprendre nga kon tey defaral la sa àdduna. defaral la sa lépp ba ku la gis respecté la. soo waxee ñu déglu la. donc loolu tamit daf man ci moom laa ko amee te yàggul. nekkul moo ñëw si man nag pour defal ma ko man maa dem ba si moom. liir ko gis si moom qualité yooyu noonu boo toogeek moom di wax nii dalay déglu du la tontu de da lay déglu ba nga wax ba pare mu mu tontu la tontu boo xamante ne bii après da ngay xam ne sa wax bi rafet na quoi mais bii moo gën. nga doxalee noonu man noonu laa àndee ak moom. ci dëgg doo toog ak moom di jëw nit. Mhm. doo toog ak moom di wax nit lu dul loo xamante ni bii ku ko dégg moom xamul loolu. moom dafa dëgg. te man man ku ma xam xam ne du ma waxal nit lu nekkul si moom. man bañ naa ko ba soo ma defee lu ma metti sax boo ma dékkoon micro dama koy wax si micro bi parce que man noonu laa mel waxal nit lu nekkul si moom noonu noonu la mel si moom. Mm-hmm. may sant nag képp koo xam ne yaa ngi doon jàppale Boy Seye si carrière rek maa lay sant di la gërëm. Mm-hmm. parce que gunge nañ ma tamit ba ma si fii mais nit da ngay dem ba toll foo xamante ni bii nag. il faut nga am ay nit ñu am xam-xam ñu dar la pour sa carrière mën a mm-hmm. mën a avancer nga jóge fi nga nekk daal. Mm-hmm. am na solo parce que noonu la nit moom dangay ngay toll benn mois boo xam te da ngay amee kilifa boo xam ne da lay orienté loolu chance dëgg la ndax euh, sànq rek maa ngi la koy wax nit moom di nga toll mois boo xam te ne mënoo nekk fenn ne foofu laay resté. Mm-hmm. à chaque fois boo avancé di nga xam ne man avancé naa kon donc moom ñu koy remercier bu baax a baax moom suñu frère boobu King Boy Seye mm-hmm. euh, tey euh, da ngay dégg ñu ne woor koor weeru promotion la. yow weeru promotion boobu noonu nan ko ko déggee yow. weeru promotion la comme. parce que dangay dégg ah soxna si da ngay dégg ñaan koor euh, weeru promotion la waaw léegi weeru promotion boobu noonu nan nga ko déggee. weeru promotion mm-hmm. si. Uh-huh. waaw si boo defee lu baax. duñ ko buñ ko natt si koor kese chaque jour chaque jour rek promotion la loo def rek da si siy am lu ëpp loolu. boo defee lu bon jàppal ne ñett a lay xaar fële après de loo xam ne du la neex mais benn boo def si lu baax rek suñ borom da koy ful day ëpp ay junni tiyaaba moo mel noonu tiyaaba moo ëpp fay bàkkaar ba ci bàkkaar sax soo ko defee danañ la may benn distance bu yàgg pour dog la ko bindal mais tiyaaba lu baax boo ko defee tak rek dañ koy bind. Hmm. loolu ndimbalu suñ borom la ko parce que xam na ne jaam ñi matuñu. Hmm. xam nga lu ma la expliqué koor moom ak budul koor lépp man pour man nit da see war a nekk quoi. waaw da nga see war a nekk da nga war a nekk si lu baax di jaamu yàlla di def li nga war a def nit kese nga nag mais defal li la war rek yow. waaw. noo gisee léegi gis nañ ni léegi jamono ji ni mu nekkee gis nañ ñu baal ma ci kàddu yu affaire góor jigéen yi bari nañ. <laughs> ci wii nii lesbiennes yi ci dëkk Sénégal ñu bari ñu ngi tooñ sax naan que ni am yi bari yu xam te ne moom yàq-yàq ci dëkk bi. moo tax yàlla indi balaa bi nii mais yow nan gisee loolu loolu day yàq société walla waaw lépp lu yàlla bëggul yonent bu bëgg ko Serigne Touba bëgg ko rek man Boy Seye bëgguma ko comprendre nga. Mhm. mais nag comme ñun yàlla daf ñu natt mënuñu wax te boo waxee Sénégal boo waxee ñii dinañ ko bëgg ñii dinañ ko bañ. su bon lu bon sax ñii dinañ ñii dinañ ànd ak yow si wax ji mais ñii dinañ la diingat ci wax ji. mais daal l'essentiel man moom lépp lu yàlla bëggul yonent bu bëgg ko Serigne Touba bëgg ko rek man bëgguma ko. Hmm. li si des nag ku si nekk nag lépp loo def rek jàppal ne sa bopp nga ko defal bu dee lu baax la sa bopp nga ko defal. Hmm. bu dee bon la sa bopp nga ko defal. Hmm. mais man daal lépp lu bon duma ko def. duma ko wax du ma ànd ak ku koy def tamit. te du ma ànd ak ku koy wax. dañoo bëgg tey nga tere ñu benn saar ndax ñu bari dañ koy jëyoo mbëri ah. Mhm. nee ñu mbëri yaa ma gën a xam bu ci euh, bien vrai que nag ñëpp dañuy jàmm yàlla mais tey booy sëy euh, tey booy booy julli tisbaar ban saar duma ne la ma saar bi wala nangam mais tey booy julli tisbaar booy sëy commencé jàpp def li mu def yëpp taxaw. Mhm. Euh, ban saar <laughs> tisbaar <laughs> booy julli tisbaar. nice léegi ban saar euh, la booy sëy war a tari benn saar rek. waaw xam nga tisbaar ñeenti raaxaa la. Mhm. te ku si nekk rek ak ni nga koy ni nga ko ni nga ko mënee quoi. Mhm. voilà man moom su may julli tisbaar su ma taree faatiya ba pare mhm. damay tari xulonse bi rabi naas su ma paree beneen raaxaa bi ma tari faatiya teg si xulonse bi rabi falaax yi beneen bi ma tari faatiya teg si xul wala ahad beneen bi ma tari faatiya teg si inaxte naaxal wala ma teg si ina ansal wala ma teg si alam tara wala li ilaafi wala ma mën naa saar yu bëri daal parce que samay waajur nag jàngaloo nañ ma alxuraan quoi français laa jàngul dara mais alxuraan jàng naa si lu bëree bëree bëri tellement que boo indi woon téere jox ma ko rek man mun naa jàngal sama bopp. paa ma dem si ndit ne ko lii lan la lii lan la mooy fer iji def naa ko mun naa ko téye jàngal sama bopp téere bi yëpp téere bi yëpp mun naa ko jàngal sama bopp. Mhm. léegi saar yooyu yëpp nga wax jël ci benn saar nga taril ko ñi nga xam te ñoom ñoo lay seetu sur Wassare TV ndax ñu xam ne Boy Seye a bokkut ak yeneen bëri quoi. waaw bisimilahi rahmaani rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiiri alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababilan tarmihim bi hijaratin min sijjilin fa ja'alahum ka asfin maqul léegi euh, dama internet ñooy jugé mais après suñu oustaz dina si ñëw li booy say tari ñu xool ba xam juum na wala juumul man daal duma ci wax internautes yi tamit am nañ droit ñoom ñu jugé. Hmm. mais oustaz bi après dina si ñëw euh, wax nga ko léegi kon donc instant bi diine xam nga dañuy dégg suñuy mag wala suñuy papa yi wala suñu yaay ñuy wax kay hmm. euh, diine euh, alxuraan ku ko jàngul perte nga ñi ne français ku ko jàngul perte nga yow mi jàngul français alxuraan bi euh, tey euh, pourquoi nga choisir li nga xam te moom mooy alxuraan bàyyi français bi. non man choisir ma ko nag de parce que bi ma koy jàng man xale laa waaw bi ma koy jàng xale bu ndaw laa mu sañu ma xëy suba ne du ma jàngi su ma ko deful dañ may dóor. comprendre nga. samay mbokk ñoo jël dugal ma dugal ma alxuraan maa ngi jànge Darou Moussi may sant ko ma koy gërëmaale tamit paa bu ma doon jàngal muy papa Sall kan la tudd jàngal na ñu bari man ay mbàkke mbàkke yu bari maak ñoom ñoo bokkoon fi ñu doon jàngee dama demoon bañ daara ji bari ay nit ñu jox ma benn partie boo xam ne man maa leen di bindal maa leen di téewal si daara ji comprendre nga ma koy nuyuwaale bu baax a baax bari woon nañ foofu hmm. waaw ëppoon nañ kenn mënoo ko konte daal hmm. daara ji hmm. ñenn ñi ba léegi ay sëriñ lañ di ñaan ñenn ñi mbàkke mbaake yi ñu ngi leen di rang xam nga. Ah. ñu yoon ay boroom daraja léegi te ñoo doon ànd di kaf di foo di ree di bëre ba si waa kër say mm, sëñ Modou Kara yi. Mhm. doomam yi xam nga. xam ne man foofu laa yaroo ci biir kër gi man ak doomam yi ñoo doon nekk ci kër gi di bëre di fa yendu xam nga di def lépp daal. Mhm. sama sama lépp daaru mu si laa ko defee. Mhm. lan moo la gën a marqué si sa daara tey loo fa def loo xam te ne marqué la na ba dootoo ko fàtte. waaw boobu moom dama dawoon jàng. dama mënoon a daw jàng nag mais damaa mënoon a jàng mais damaa bëggul woon benn moment damaa demoon ba bëgg a bàyyi jàng. mais boobu awma kàttan doole boo xam ne mën naa taxaw ma ne lii dootuma ko def. may daw jàng di daw jàng ba benn jour euh, daar borom daara ji yónnee na ma yónnee ne nañ ko nañ nañ ko nañ ma dem wëri ji ñëw ci garage bi fekk ma may may